bëggoon leeral benn disons fausse information parce que photo bi nii euh, dañ ko dugal wax ni imam euh, Ousmane Diop imam Zawiya Seydi Malik, Malick mhm. moom mooy parrainé noonu liste bu waa Pastef fi 111 mhm. euh, onze ngay gis noonu mhm. bu Bassirou jamaay fay ba ñoom parti boobu la jotoon nañ ko dugal seen benn plateforme di wax ni imam bi eh, di imam Ousmane Diop bu Zawiya Seydi Hadji Malick moo leen di parrainé. Mhm. mu nek lo xamanteni nak nag eh, wérul mhm. déjà borom photo bi lay mhm. du du imam Ousmane Diop. du mom et que Zawiya bi aussi tamit amul ben prétention politique. amul ben taxaway bu muy def ci politique. amul ben partisanerie aussi tam bu def ci wal politique. boy wut fu muy far ak fu muy féete te itam defe bu ko don def itam. duñ ko def ci tourou Zawiya bi avec cette façon là donc ki ni ñuy wax. ni imam Ousmane Diop la bu zawiya Sidi Hadj Malick du moom. kon du moom et lii ñu def tam euh, dañuy sàkku ci ñu ko def ñu retirer ko ci ni mu gën a gaawee. Mhm. ndax fausse information la déjà nekkul sax loo xamante ni lu rafet la nga koy attribuer kilifa goo xamante ni euh, kenn mii ko ci wàllu woowulee te itam euh, nga tudd ci zawiya boo xamante ni politique takkewuñ ci laalewuñ ci donc je pense que euh, nekk na loo xamante ni daal jekkul rafetul te suñ ko mënee dindi ci nu mu gën a gaawee ñu def ko ndax fausse information sagam information bu wér moo mën a gaaw a law waxuma ak nag fausse information ak dégâts yu mën a engendrer ñaan ñu donc il faudra que ñu préciser que Euh, kii borom fada bi ne du imam Ousmane Diop benn tey tamit zawiya bi amul dara loo xamante ni takk na ko ci wàllu politique bay fu muy far fu muy fu muy fu muy féete. macha allah mu doon lu ñuy lu ñuy lu ñuy ñaawlu trop waaye tamit di ci gën a loo xel nit ñi te xamoo ci ku muy tàbbi ku mënul ne ku mënul segg euh, yaakaar ne dëgg la mu gisee ko neneen wala am fu mu la taxal alors alors que ne du dëgg donc du moom lépp loo xamante ne war na ci aussi dinañ ko def ci wàllu communication ngir leeral war na leen ne. kooku du imam bi te it zawiya bi taxeewul dara ci wàllu politique képp koo xamante ne yaa ngi doxal sa wàllu politique ku nekk fa nga far yaa xam sa sunu yoon nekku ci waaye lépp lu jëm ci wàllu diine ji ak ci wàllu zawi zawaaya yi nañu bàyyi xel na yënguwul ci wàllu politique ak jàppal ki ñuy jàppal suñu xol la nekk ñun ñoo xam ba ñuy dugg ca mbañ gàcce gi ngir jàppale ko waaye du ñu taxaw kilifa gu toll ni moom toog naan ñu mu ngi mu ngi fotow ngir euh, jàppale benn koo xamante ne way politique la wala yaa ngi yëngu ci loo xamante ne mbiri àddina la donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax euh, yal nañu yàlla defal dégg ak topp mm. euh, di ñaanal ñëpp jàmm nekkoon seen jotaayu marhaban Sénégal matinal bu comme tous les matins tey ci altine gi ñu